autour de l'homologation du ladoum donc l'homologation du ladoum est-elle une priorité loolu mooy yenn seen thème ñu tey panel bi fi experts yi nar a développé euh, ce sera par rapport euh, ñoom ils ne la question mais dañuy li ñu nar a développé mooy euh, l'homologation du ladoum est une priorité l'homologation du ladoum une priorité pour l'élevage du Sénégal euh, man nag ma may modéré débat bi euh, les panélistes ñaar lañu euh, kenn ci ñu njëkk tudd kooku moom kenn du ko présenté muy le docteur Diallo Pape Alé Diallo bi nga xam ni docteur vétérinaire la Euh, bi nga xam ne tamit nekkoon président REIT euh, gis nañu depuis euh, nekk na président REIT pendant plus d'une dizaine te gis nañ mu liggéey foofu docteur Diallo tamit mooy président commission scientifique bu fédération nationale des acteurs de la filière mobile muy FENAFO donc muy euh, également le président de Rey de Thiès euh, man nag euh, comme ni ma koy faraloo mooy docteur Diallo mooy suma maître tey su ma amee fu ma toll si élevage wala lu ma si xam c'est en grande grâce à lui donc moom a traité en quelque sorte donc keneen kii nag beneen parrainage bi Moustapha Anne la Moustapha Anne nag moom ingénieur agronome la euh, bi nga xam ne il est spécialisé en économie et en sociologie rurale euh, moom it aussi euh, macha allah am na expérience bu bëri avec surtout des projet liggéey na ak projet yu bëri banque mondiale liggéey na aussi ak fonds luxembourgeois aussi lu bëri nekk na aussi expert fële si APEX liggéey na si bu baax ak projet autoroute à péage bi avec la forêt de Mbao et euh, moom it côté association nekkoon euh, na président commission scientifique bu adam tey jii daanaka euh, concours yi ñuy def yeeg ak sectoriel yeeg yooyu yëpp daanaka moom moo élaboré nag les critères ak def na si liggéey bu am solo ba pare nekkoon également vice-président ADEN bu Rufisque euh, actuellement euh, euh, moom mooy président commission éthique bu ADAM également bokk na membre la ci commission scientifique TENAFO moom également moom mooy coordonnateur jury national bu fédération bi surtout le coordonnateur donc mu nekk koo xam ne vraiment am xarañ la si côté agriculture ak élevage euh, donc ñun ñoo ñuy waxtaanal par rapport ak euh, thème thème bi moo wax tout à mooy ni homologation laa dul euh, priorité la si suñu élevage maintenant jëriñ également jox kàddu bi suñu xarit suñu partenaire bu CNAAS assurance agricole parce que assurance agricole moom tey jii day jouer rôle bu baax si suñu élevage bi surtout élevage laadum surtout élevage intensif je voudrais euh, donc moom it def benn présentation pour wax ñoom si euh, seen i produits si naka la ñuy liggéeyee ku bugg assurer assurance ban njëriñ la te bugg assurer fan jaar ba euh, assuré sa sa sa jur voilà donc sans tarder dañuy dugg ci débat bi proprement dit homologation dañuy dugg la mooy homologation laadum ak ñun euh, commission scientifique FENAFO bi aussi bokk na tey jii suñu waxee FENAFO liggéeyam liggéeyam euh, bi FENAFO li si gën a ëpp solo na si liggéeyu commission scientifique aussi li si gën am solo si euh, côté boobu la donc ñun si développé dinañ wax wax en quoi la nekk priorité. te dinañu wax aussi liggéey bu ñu si jot a liggéey pour le moment fan lañ si toll aussi donc loolu yëpp dinañ ko wax euh, sans plus tarder euh, su ko wax nag homologation laagul mooy en quelque sorte reconnaissance laagul mooy ñu reconnaître ko euh, te pour reconnaître laagul nag dafa am fu muy jaar ah da nga ko laagul balaa nga koy reconnaître da nga koy mandargal mooy caractérisation donc loolu yëpp nag ñoom dañ si jël si dellu si soirée bi incha allah. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Diallo. Mais également di nuyu honorable Massata Samb di rafetlu teewaayam je crois que depuis son accession à l'Assemblée ñu ngi doog a daje te waat mu ngi joué un très important dans le mouvement associatif pour mais également notre doyen euh, xam ne sax peut place fii la woon parce que li nga xam ni jaar na ci la laadoom yépp lu ci bëri fekke na ko donc thème bi nga xam ni bëgg nañ ko waxtaane tey xam naa ce sera pas ñu jël ko ci angle boo xam ne dafa technique trop mais mën nañ ci discuter donc ci discussion boobu ci boppam euh, éleveurs yi panélistes yi ku ci nekk am na ci point de donc euh, la question moom mooy ñu laajte ndax homologation priorité la ci wàllu élevage laa doon donc pour aborder thème boobu maanaam euh, ni ko Abou waxee l'homologation c'est la reconnaissance et kas mooy kan mooy reconnaître loolu moom mooy état donc pour que état remettre remettre loolu c'est un processus am na koo xam ne war nañ fi jaar ba mën a yegg si ci kaw maintenant élevage laadum bala ñu aborder loolu il faut ñu wax un peu l'historique l'historique de l'élevage ci liñ ci xam ndax liñ ci bind euh, bëriwul trop donc boobu bëggee dem ci documentation liñ fa gis laadum bëriwul trop loolu nag amaana li ko waral moom mooy euh, sénégalais yi ou africains yi peut amuñu habitude di documenter seen euh, liggéey seen xam-xam di ko bind lu gën a euh, tradition orale bi dafa ancré ci suñu suñu euh, suñu culture donc de sorte que si on essaie un peu ñu xool laadum fan la jóge moi je crois que sans aucun doute élevage laadum ni nga originaire à Thiès fa la jóge donc bi ñu fay jógee buñ ko xaymaa ci ci ci ay at on sait pas exactement ndax euh, bu dee ni passaade si la ñu moom lañ ko moomeel te moom moo njëkk a indi xaru laadum euh, malheureusement ou heureusement ci biir dundam jigewuñ ko jigee bu nga xam ni peut-être li nga fi mu jaar ba ni xar bi kat laadum laa ko tudde mu amuñu amuñu kii boobu mais nag ci biir waxtaan ak sa famille ils ont dit que góor gi depuis cinquante neuf commencé ne yori xar mais xaw nu mu ko tudde woon mais ce qui est clair vers les années soixante dix ci boppam am na ci éleveurs yoo xam ne commencé nañ ci intéressé donc ci waxtaan boobu yenn saa sax sama doyen dama ci waxtaan ak moom mu ni yéen nga bëgg a def euh, laadum wàccee seen moomeel mais man laadum gis naa ko euh, avant date yooyu ngeen wax gis naa ko mais nag le problème ne pas que gis naa ko mais ki nga xam ni am na xarañteefu ba mu gisee laada mu wutal ko tur wutal ko màndarga wutal ko tur indi ko tàmbale ko ndax créé wu ko da koy fekk ci benn benn gox rek mu jël ko donc je crois que peut-être noonu noonu noonu la demee vieux Sada Sy amoon na ay connexion avec euh, la Mauritanie muy gis xar yi foofu ràññee fa benn façon wu xar tànn ko xawma ci gett yi nekk Mauritanie wala ci biir euh, daral yi nga xam ne mu ngi nekk fii ci biir Sénégal dajale ko commencé di ci def multiplication ba ci les années mille euh, soixante dix am na ay yeneen naataangoom yi nga xam ne tàmbale nañu liggéey boobu ak moom kiñ ci njëkk a xam moom mooy euh, Matar Mbengue Matar Mbengue ci jamono yooyu commencé na di ànd ak moom di def élevage boobu. bu ñu doxee tuuti ci ay at am na yeneen génération éleveur peut-être yooyu abu dina ci dellusiwaat yoo xam ne dugg nañ ci bu dee cees di nga ci mën a waxee ak ñoom Samba Diallo di ñu wax ñoom Diawara di ñu wax ñoom Baro Mbay di ci wax ñoom Assane Assane Fall donc éleveurs yu bëri dugg nañu ci loolu parce que gis nañu xar yi kat am na différence ak peut-être yeneen xar yi nga xam ni am nañu habitude leen gis. ndax boo duggee ci école yi école vétérinaire yi li ñu lay jàngal daanaka laadum amu ci ce qui fait que moi dès 92 bañ ne ma luy laadum xaw ma lan mooy laadum te alors que boobu fekk na man j'ai terminé mes études vétérinaires je connais ça va le mouton laadum et j'avais même des doutes ma ni est-ce que lii la est-ce que c'est vraiment une race ce qui fait comme j'ai commencé l'élevage ma tàmbali di def élevage. mais sujet yi nga xam ne damay dem ci daral yi jënd ko indi ko bu ma ko méngaleeg sujet éleveurs yi ya ñu bokk sujet éleveurs ñoo leen di sut ñoo leen di gën a rafet n'est-ce pas ñoo leen di gën a gaaw a màgg ñoo leen di gën a rëy donc là ma commencé di wax ni éleveurs yi li ñuy wax daal moi je pense que am na ci boobu laa commencé di poser wu la question mais xar bi fan la jógee naka la ñuy def ba xar bi mën a nekk d'autant plus que bokkul ak xar yi nga xam ni jàngale nañ ko ci école yi ndax ci ak xar yi ñu jàngalee école yi moom mooy les moutons toit biir lañ daan xam les moutons pël boo demee au muy xar yu ndaw euh, no euh, ci xaru sàmm yi les moutons pël ak les moutons du sud moom la ñuy wax les moutons dialonke ak les moutons qui nous venaient de la Mauritanie ñuy wax le type bali bali donc réellement le mouton laadum c'était la première fois ñu wax ko ci Sénégal ñu wax ko particulièrement ci boo ko toppee également koo gis mi nga xam ne mi nga yor xaru laadum boo ko toppee da ngay dellu soit ci ci ci passage ci jamono yooyu aussi may topp éleveurs yi di xool comment lañ daan def pour approprier wu xar yi et je me suis rendu compte que éleveurs yi aussi amoon nañu habitude di dem ci daral yi di tànn ay xar di ko indi di leen tuddee laadum xar yoo xam ne juddooloon seen gétt yi di ko booleeg seen xar yi nga xam ne jëkkoon nañ ko am mais li ci gën a bëri xar yooyu yooyu ñu fi daan jëlee ci jamono yooyu vers les années 92 dañ ko daan jël boole ko ak kuy yi nga xam amoon na amoon na ba pare. donc aujourd'hui bu ñu indiwaatee thème bi ba tey on se ñu ngi laajte lan moom mooy laadum est-ce que homologation priorité la wala du priorité donc loolu dafa wane ni ci liggéey bi am na ci lu bëri loo xam ne des na ndax bés bu ñu nekkee ci benn activité yor ci benn façon. benn façon spécimen benn façon xar war nañu mën a taxaw ni xar bi kat lii moom mooy caractéristique yi caractéristique yooyu nag aujourd'hui défi pour association yépp ñu ànd euh, wax ay caractère caractère laadum lii ak lii ak lii la liggéey boobu au niveau de la FENAFO tàmbali nañ ko depuis très longtemps yi boobu léegi yeggagul donc ci biir caractère yooyu rek buñ ci bëggee junj dañ naan xar moom boo ko bëggee caractériser ñaari mandarga rek moom la am benn mandarga bi moom mooy les caractères quantitatifs li nga xam ne mën nañ ko mesurer boo dikkee ci association yi di fi fekk ay mensuration yu nga xam ni dañ koy natt ci biir xar bi éleveurs yi jàpp ay hauteur au garrot ñu jàpp la longueur du mouton le périmètre thoracique donc yooyu yëpp ay caractères quantitatifs la yu nga xam ni mun nañu wax ni race bi kat le poids mun nañu wax race bi lii moom moom mooy ay potentialité nii la mën a toll ci guddaay ci njoolaay wala ci diisaay beneen bi moom mooy les caractères qualitatifs bu nga xam ni moom mooy les formes la forme de la tête ndax la forme de la tête elle est boo jëlee xeet bu mu mën a doon muy mala muy nit boo xoolee bopp bi rek di nga mën a xam kii foo koy féete donc la forme de la tête elle est déterminante boppu laadum nan la mel loolu commencé nañ ci li ci waxtaan nopp yi ni mu toll encornement béjjén yi nan la mel n'est-ce pas loolu moom mooy ci wàllu bopp bi li ci gën a bëri xariñ yi ñu fi présenté boobu léegi da ngay gis ni bopp bi le front est convexe pour la plupart part bopp bi dafa def mbége n'est-ce loolu moom moo tax sax jamono yi nga xam ni doyen ñi ngi doon yar xar on di que xar yi dafa am aspect euh, comme on appelle encore aspect kéwél kooku njoolaay bi la mais aspect euh, bec de bec d'aigle voilà la la forme de la tête donc elle est beneen bi moom mooy la robe la robe aussi bien que accepté nañu presque robe bu yëpp loolu aussi étudier nañ ko ñu xool yan façon robb moom la éleveurs yi gën a taamu ndax xar bi dafay weex tàll xar mi day noir et blanc on appelle les moutons pie noir am na ci xar yoo xam ne dañuy on l'appelle fii ñebbe am na xar yoo dañuy todde ci gannaaw am na du marron ci biir bien sûr est-ce que accepté nañ ko accepté wuñ ko mais y a du marron y a du gris muy wax cuulul bi donc façon couleur yi muy robb bi bëri na trop ci biir xar yi léegi nag ci liggéey bi aussi aussi mënoo tey nga ni ah bii couleur bi kat moom mooy couleur laadum couleur bi nekkul couleur du laadum mais on peut travailler sur les préférences ndax préférence yooyu éleveurs yi di am ci la ñuy mën a liggéey pour mun a am xar bi nga xam ne moom la ñu bëgg ndax bu ñuy wax génétique rek bi nga xam ne moom mooy science bi nga xam mooy def la science de l'hérédité moom mooy wax caractère nan lañ koy doon ne te li ngay doon day fekk mu nekk ci yow caractère yooyu yépp mun nañ ci travailler ba ëllëg ñu mën a am xar bi nga xam ni c'est le mouton de notre choix donc la robe dafa compter la queue gen gi fan la war a yem nu mu war a toll yooyu yëpp xalaat nañ ci wax nañ ci xar bi l'ossature on en a parlé le poil karaw bi également nan la war a mel ndax am na ci xar xar yoo xam ni seet karaw bi dafa sew gàtt am na ci xar yoo xam ni karaw bi dafa gudd n'est-ce pas donc loolu tey question bi ngeen laaj moi je crois dañ ci gën a approfondir bu ñu defee peut-être tour de table ñu gën cee mën a wax est-ce que loolu priorité la est-ce que loolu du priorité demain xar bi nga xam ne bëgg moom nañ ko buñ ko bëggee jaay il faut ñu présenter ko il faut moom carte d'identité il faut ñu mën a xam les différents caractères qui régissent ndax race yëpp am nañ ko ni temps bi ñu jël pour caractériser laadum yi tubaab yi ba ñuy ñëw fii di caractériser suñu xar yi jëluñu temps bu mel noonu ils ont vu ils ont vu le mouton pël en général xar yi giir yi leen di yor na nañ ko bëggee rek lay mel ndax ba ñu dikkee rek xeet bu nekk daanaka day am xaram te bu ñu defee caractérisation bi day doon caractérisation boo xam dafay fiable maintenant aujourd'hui mu des ci ñun ñu taxaw war a caractériser ko ko di d'identité ni laa doon kat nii la mel ëllëg bu ñu bëggee ko génnee à l'étranger ñu mën ko jaay pour homologué il faut d'abord caractériser caractériser mooy il faut ñu mandargal ko donc ñoom am na liggéey bi ñu commencé woon def mooy liggéey mandargal bi te loolu xëy ñu def ko euh, c'est à travers beaucoup de rencontres dañuy dem si éleveurs yi mais éleveurs yi yow pour yow par exemple laa ban couleur la kii ne marron kii ne gris kii ne lii kii ne donc couleur yëpp yi éleveurs laa dum yi yor yëpp dañu ko intégré donc il a parlé du marron il a parlé du noir il a parlé du gris il a parlé du blanc euh, poil bi aussi pelage bi aussi wax na ko wax na poil long wax na poil ras donc bopp bi wax na ko aussi am na yoo xam ne bopp bi tàcc la comme antilope comme avant xel yu njëkk yi euh, am na aussi yi nga xam ni bec bec bec la c'est-à-dire day tàlle bi si kanam am lem si kanam euh, donc y a aussi yi nga xam ne seen bopp dafa dama carrément bon mooy mujjee yi donc loolu loolu mooy en tant que soit euh, description bi donc ñu xuus tuuti